Mado mu indil ñu masque boo xamante ne miel la ak citron base bi waaw bijou comme ni ma la ko waxee woon sànq donc la dernière fois j'ai été interpellée par ex par rapport ak seen peau yi nga xamante ne dafay xaw a sek un peu parce que lan moo koy waral moo di dafa craquelé au fait c'est ça le mot craquelé moom xeet tu kër kero kase la moom beneen niveau la moom geeru kew ba la jóge <laughs> waaw moom geeru soko si nekkoon capitaine <laughs> bi mais yow fi mu ne la dafa war a sam papa loolu la daan wax na góodu diw. non góodu diw <laughs> non mais góodu nag léegi jeex nag donc mooy xeetu didim bi ngay wax rek dëgg la góor dafa war a diw muy góor muy jigéen parce que der dafa bokk ci doomu aadama euh, te dañ ko war a dundal moo tax du ma taay di wax comme ni ko Pape Cheikh di waxee nee na ma di nga diggale sax suppu kànje ñu diwoo ko bu fekkee ne gis naa ne am na ay ngëneel dinaa ko rawatina kànje boobu sax mm-hmm. beneen yoon dinaa ci ñëw mais tey ci li indi rek moom moo di masque boo xamante xamante ne c'est à base de miel et de citron mu nekk li ñu duppee éclat donc la peau elle va devenir éclatante léegi ci naka parce que li nga xamante moom moo di citron euh, dafa nekk fruit boo xamante ne c'est très riche en acide citrique ak li nga xamante moom moo di vitamine C juste pour dire que léegi seen yaram dina boosté wu bu baax a baax parce que vitamine C boobu daf koy euh, dundal mu amaat leneen loo xamante ne dafay defaale effet ci yaram bi nga xamante ne dafa am ay boutons wala dañu am ay taches noires tout le temps parce que li nga xamante ne moom moo di euh, citron boobu dafa am ay vertu antiseptique lépp loo xamante ne taab la wala bouton wala lenn loo xamante ne da ko am boo utiliser citron boobu euh, di ko ci def daf koy wowal ba pare dagg li nga xamante ne moom moo di bouton bi ce qui veut dire que dafay dindi lépp loo xamante ne moom moo di tache noire ba pare anti tache parce que comme ni ma koy waxee euh, dafa am ay propos hmm, dafa am ay vertu yoo xamante ne on parce que bu fekkee dafa am benn tâche boo ko ci defee bu yàggee tâche boobu dafay dem lan moo koy waral vitamine C bi nga xamante ne daf ci nekke léegi nag pourquoi ñu rajouter ci miel bi parce que le miel ça adoucit la peau moo tax comme par exemple genre ex yi donc ni seen peau yi di mel ni luy craquelé wala kenn koo xamante ne mi ngi toog këram di seetaantale excuse moi nga xamante ne deram dafay craquelé ci seddaay bi mun ngay def li nga xamante ne moom moo di ba euh, miel boobu di ko def ci sa parce que ah. daf koy adoucir waxee daf koy nourrir li ñuy duppee en profondeur et ça va rendre la peau plus belle léegi masque boobu nan naka nañ koy defee c'est très simple euh, da ngay utiliser li nga xamante ne déjà moom moo di miel euh, miel benn kuddu à café de lem wala ngay utiliser aussi citron léegi nag am na ñenn ñoo xamante ne ils ont la peau très sensible donc bu ñu utiliser doomu limon bi parce que d'habitude moitié citron bi laay digale ak kuddu bu ndaw euh, kuddu bu ndaw lem léegi nag bu fekkee tu trois gouttes maximum quatre gout nga mélangé ko boo ko mélangé nga appliqué ko ci sa kanam mais avant de l' appliquer sur ton visage il faut nga nettoyer sa kanam toujours ba pare boo ko nettoyer comme ni ñu koy waxee ndox bu tàng boo ko jëlee def ko ci kaas di ko respirer nii wala comme mel ni kuy inhalé wu da ngay gis que dafay ibbi say pores pourquoi léegi nag day permettre masque bi nga xamante ne mélangé nañ ko def nañ ko ci mu dugg ci biir pore bi dugg ci biir peau bi ba pare def li nga xamante ne moom moo di effet bi ñu soxla donc bu nettoyez bien la peau comme ni mu ko waxee boo leen gomee ba pare pare mun ngeen def sucre ak huile comme ni ma ko waxee woon peut-être wala yeneen jours sucre ak huile maanaam dëwliñ ak suukar huile d'amande douce ngeen gome seen kanam ba mu set dindi impureté yi ko avec de l'eau tiède jël na ko ndox bu tàng boobu def ko ci seen kanam mu ibbi seen port ngeen jël masque boobu appliqué ko ci bu yàggee pendant une à deux fois par semaine mun ngeen ko def di ngeen gis ni lépp loo xamante ne moom moo di tache wala kanam yi d'habitude da ngay jël tout le temps ay huile huile douce huile d'olive ay huile végétale nga def jaxase ko ak tuuti diw di ko appliquer ci sa kanam di nga xool en même pas une à deux semaines tu verras que ta peau elle sera nette et tu vas faire tous les produits aussi huile mhm. de baobab y a pas meilleur bijou c'est super y a pas meilleur non parce que soo koy diw ah, da ngay sentir mhm. ni muy sa yaram bi si boppam daa mel ni limite danaan la merci daal effectivement parce que da nga koy lëbe déedéet mooy buy mooy buy bi buy voilà surtout pressé à ah, froid voilà pressé à froid huile de serpent rawatina nag ci karaw c'est surtout pour les cheveux voilà mais l'huile de baobab comme ni nga ko waxee nekk na huile bi nga xamante ne moom moo ëpp vertu ci euh, nit ki parce que non seulement tu peux l'utiliser pour tes cheveux tu peux l'utiliser pour li nga xamante ne moom moo di sa karaw euh, pour sa yaram mun nga ko utiliser sax pour sa biir yaram parce que di ko naan aussi dafa baax c'est que huile de serpent loolu pour bopp la pour karaw ñi nga xamante ne ay chute de cheveux mais fan non c'est la peau c'est la peau xam nga la peau de du serpent boo ko filee elle est grasse euh, c'est une peau qui dafa dafa am graisse donc graisse boobu nañuy jël travailler ko à un tel point tu prends de l'huile wute nag à pression froide comme bi ngay defee doomu euh, doomu bi voilà pression froide boobu donc tu perds mhm. rien en fait ne perds rien du tout dafa mel ni comme par exemple ak bon waa voilà ak graine yi d'habitude pression froide mais amaat na beneen huile boo xamante ne ak pi du ñàkk dinañ ko ñëw waxtaane ko parce que gis nañ Dominica dafa def tollé en ce moment surtout Abidjan mooy huile yi nga xamante ne dañ koy jël di ko utiliser ci seen yenn partie yi ba pare mu koy jox muy gonflé ah, donc ça existe te am na ay vertu donc du ci ñàkk aussi euh, dinañ ko am na Cameroun am na Abidjan te dafa nekk lu naturel te xew na instant yi mais dinañ gën a def aussi moo tax ma ne je vais faire des recherches aller voir un médecin et un dermatologue ñu waxtaan ci parce que en ce moment mi ngi def tollé étudier ko étudier ko voilà waaw mais bii nag huile bi la wute naag kii suppositoire yi. merci. <laughs> ndeysaan qu'est-ce que femme ne fera pas en tout cas merci beaucoup récemment récemment. Euh, comment elle Sénégal, les gens le suppositoire. Euh, elle avait fait les enquêtes de ah, mardi. Ah, a fait, elle avait fait euh, ah, euh, c'était il mm. beaucoup de zones d'ombre quoi. ci ci ci ay bouillon sax yu famille di utiliser. waaw man boobu mm. na bari na de surtout avec l'avènement des réseaux sociaux là. donc le sport. amaa de la muscu mais boo tayeelee ba mel ni man nag. nga boo jëlee dem inscrire salle ñëw ci waa salle bi ne leen maa ngi ñëw ba ñëpp di la xaar. <laughs> te kenn ah, ah, il y a des ah, exercices lii nga bëgg développer il y a des exercices dédiés. ay 20 minutes 10 minutes par jour moi je pense moo a ko seet am naa ko sax indil leen mais nag ñu gëstu ak docteur yi. ay sofi fooy <laughs> a laaj. <laughs> la jox. Sophie Sophie <laughs> kenn du la jox dama lay wax rek duñ la jox de. <laughs> merci beaucoup Mado pour merci beaucoup pour euh, rubrique euh, beauté bi ñu indi tey masque au citron et au miel. donc mhm. neex na defar et puis ça peut vous servir surtout ci période seddaay bi. mais Mado dama la laaj Mado tànk dañ koy masque. oui ah, si si c'était juste une question. sa tànk yi kon buñ ko génnee fii. dañ koy masque booy def pédicure. après war nañ ko kii quoi. jërëjëf bul génnee bul génnee recevoir kay recevoir sa gan. man weexuma pourtant non je te jure nag. non du weex bi tànk yi ngay wax noonu kay. week-end bi da ngay leen on a une question derrière est-ce que le masque c'est juste pour le visage ou sur toute la peau je pense que. on peut le mais on peut le faire sur tout le corps mais c'est vraiment mieux pour le visage et le buste parce que am na ñoo xamante ne ces boutons noirs là ils l'ont au niveau de la poitrine donc pour seen point yu noir yooyu dañ donc mun ngeen ko utiliser jusqu'au buste ah, voilà donc voilà réponse bi am na mais ça peut faire du bien à la peau bu ngeen ko defee masque sur tout le corps ça peut faire du bien donc euh, dañuy recevoir